mbokk internet yi ñu topp ci Dakar live maa ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen xamal rek mbégte la comme ni ñu koy waxee say su ne alors ma toog ak pot fekk ko ci li nga xam ne moom moo di ndogu partage bi nga xam ne dañ koy organiser chaque at euh, bi nekk troisième édition tey ñu daal di nag servir li nga xam ne moom mooy 2000 pack ci askanu Sénégal Pod maa ngi lay maa ngi lay fay bu baax di nuyu waa Dakar live di kontaan également ci interview bi mais kontaan naa bu baax a baax baax tey ñu fekk la Pentola ndogu partage bi nga xam ne organisé ngeen ko chaque at ngeen koy def rawatina nag di ko séddale ci askanu Sénégal lan la leen def en ce ngeen di servir ay lekk yoo xamante ni da ngeen koy jox ñi nga xam ne leer na leen seen ay fans la leer na leen ay sénégalais lañ te ñu soxla. waaw euh, c'est c'est une fierté parce que tey loo xamante ne dañ ko commencé première édition ñu dem deuxième édition dafa troisième édition et aussi ñuy seetlu nekk à chaque édition ñu gis ne affaire bi day gën di yokk. donc ñu xamante ne euh, donc li ñu si nekk lu baax la comme lu ñuy wax lu yàgg dëgg la nit ki soo nekkee si dara di si yàgg c'est parce que c'est quelque chose de bien mais également tamit 2000 packs ñu koy séddale franchement c'est extraordinaire te ñu ngi ñaan incha allah peut-être année prochaine ñu séddale 10 000 packs donc loolu mooy objectif bi ndogu partage la ñuy wane ne que musulman ak chrétien ay benn lañ donc c'est quelque chose d'extraordinaire quoi. dañuy gis chaque weeru koor ngeen di ko def am ñenn ñoo xam ne dañu ne euh, est-ce que waroo leen woon di ko def ci budul koor xool ñi nga xam ne ñoom ñooy néew du pour di leen gën a jàppale parce que dafa nekk initiative boo xam ne askanu Sénégal d'accord effectivement li nga wax c'est c'est important parce que soo gisee engouement bi muy am tu lii mën nañ ko mën na dépasser donc euh, soo xoolee ñi si doon waxtaan parce que y a la possibilité que ñuy dem ci prison yi di fa joxe yu mel nii ak tamit périodiquement chaque fois mu am benn événement ñuy organiser lu mel nii donc c'est quelque chose donc euh, dañuy ñaan rek gars yi gën si jàpp quoi parce que initiative yu mel nii il mu am ay bon volonté yoo xamante ne si jàpp jàpp baax a baax a baax pour que ça soit plus possible donc euh, ñuy féliciter di encourager également organisateurs yi ñi nga xamante ne ñoo si taxaw ba lii sotti quoi franchement c'est une belle réussite ah. gis nañu complicité bu doy waar seen diggante yéen acteur Marodi sa diggante ak Eva Rosé ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk mais dafa mel ni dina bokk ndey ak baay loolu lan la. Ouais, c'est une famille, hein, parce que soo xoolee les acteurs de Marodi de de Pod et Marichou nous les anciens en fait dañoo démarré ndoo donc on était rien ñu démarré ndoo donc succès bi ñëw kenn yëgul sa bopp donc mu nekk une vraie famille ah quelque chose de vrai moo tax saa yu ñu gisante da ngay yaakaar ne euh, démb la ñu gisee donc dañuy saafonte xam nga donc da ngay sentir carrément c'est des personnes qui s'aiment et qui s'apprécient donc euh, franchement looloo waral fu ñu nekk tout le temps dañuy séq jàmm je pense que loolu sax moo tax série bi amoon succès quoi alors euh, série Adja nekk série boo xam ne marqué woon na sénégalais bu baax euh, ba tey ji ñu bare bëri di ko laaj euh, te waxoon nga ci waxaat ci alors dafa nekk loo xam ne sénégalais ba tey ji dañu koy laaj ne dañu bëgg mu ñëwaat Marodi fan la ci toll est-ce que bokk na ci ay projet pour at yi di ñëw série Adja mën a am. oui bon je pense que loolu sax dépend de Patisen parce que série Adja dafa nekkoon continue boo xamante ne Patisen moo ko moom donc voilà donc de fait. ñun suñu wàllu bopp du ñun ñooy jël décision bi def ko mais tey saa yu ko Patisen buggee ñun on serait prêt à le faire donc loolu moo tax mais boo xam naa peut-être Patisen ñoo pareegul mais si Patisen est prêt ñun on va le faire incha allah. Euh, mu nekk ci euh, série boobu li bete bete mu dem event pro te ku nekk xam na ni euh, produit la boo xam ne ñi ngi ko xamee ci ki nga xamante ni moom mooy Marodi alors loolu est-ce que du ko empêcher bu fekkee ni Marodi daf ko soxlawaat quand même rawatina mu nekk ci saison. oui non loolu du problème ah euh, Doudou c'est un acteur ah acteur la boo xamante ne comme tous les acteurs yi nekk fii Sénégal gars yi am nañ droit franchement jouer ci production yëpp donc tey Doudou c'est mon c'est mon c'est mon c'est mon élément quoi élément Marodi la tey jii suba sax suñ ko soxla woon suba suba suba mu ñëw donc euh, voilà franchement c'est c'est c'est quelque dañ koy encourager parce que loolu ñu war a def parce que tey benn maison de prod mënul yor acteurs yëpp il faut que mu am maison de prod yu bëri a mën a jouer par exemple le temps que série bi jeex le temps que série bi ñëwaat yow mën nga dem feneen nga jouer pour que comme ça acteurs yëpp mën a tout le temps ñu am lu ñu gagné quoi. les quatre fantastique moom tam nekkoon na loo xam ne sénégalais dañ ko doon cons bu baax daaw ren gisuñu ko lan moo waral. waaw en fait euh, c'est-à-dire bon ñun au sein de on peut pas faire tout le temps plusieurs productions donc c'est vrai que daf nañ ko koor bi passé daf ko koor euh, tabaski bi mais année bi mën na ko jàppee ne genre pause donc dinañ xaar benn moment bu propice pour ñu indiwaat vraiment quatre fantastiques mais c'est vrai que sénégalais yi bëgg nañ ko ren koor bi ñëwul mais na ko gars yi xaar koi idée bi moo fi moo fi nekkul wala côté production da nga problème wala côté financement lan. non non non en fait a pas un problème particulier ah c'est-à-dire que tey bon c'est le choix de la direction ñoom ñooy choisir chaque korité ak koor production yi ñuy def donc cette fois-ci on n'a pas choisi euh, quatre fantastiques benn problème majeur ah très très très mais tey euh, mën ngeen mën nañ ko xaaraan très bientôt ça dépend ah amul benn problème. ban critique ngay def ci ñi nga xam ne ñu ngi critiquer série boobu di Bété Bété parce que kàddu yi nga xam ne Marème Sall ko am ñu ko ñaawlu alors yow ban critique nga def. waaw en fait xam nga fii Sénégal dafa dafa xaw a métti tu parce que gars yi dañuy seetaanee la seetaan au premier degré donc euh, mais ñun les acteurs ñun les maisons de production loolu rek ñu jouer avec ça donc mais ça amul benn problème moi je pense que tey jii nii il faut que ñu jàppale. le cinéma jàppale production audiovisuelle Sénégal xam ne ñun les maison de prod ñu ngi def liggéey am solo te il faut que gars yi jàpp si bu baax a baax a te tey jii nii euh, les critiques c'est bien mais tey na nekk benn critique constructive buy permettre tey maison de produit franchement ñu ñu ñu ñu ñu ñu gën a avancer ñu gën a évoluer mais il faut pas faire des critiques yoo xamante ne c'est pour descendre les maisons de prod ot ku ko joxoon rôle boobu mu saagaloo ko ci. bon en fait Soumboulou c'est une excellente actrice actrice bu mag la boo xamante ne tey su demee ba koy jouer c'est parce que xam na ne fu mu ko teg donc c'est vrai que sénégalais yi nag ñoo am benn vision boo xamante ne mais a priori la soo xoolee suñu demee ba si yàgg après ils vont revenir à la raison mais cinéma moo laaj loolu noonu donc tey jii nii faut pas que nit ñi di si am len lu si xel ñaar film bu ñuy def rek c'est des leçons à quoi. alors kon duñ toog ak yow ba jug te duñ la laaj loo xam ne gis nañ ko fan yi muy photo yu yu fuité yow ak sa ex laa a wala sa femme ak sa sa doom ñu gis benn photo boo xam ne fuité na am ñu ne photo boobu lan moo ko waral porte yan leeral nga indi ci photo en fait du photo yu fuité ah donc en fait man je suis allé euh, en Espagne je suis allé voir donc euh, ñu defandoo ay photo donc mon fils vit avec sa mère donc forcément on fait des photos ensemble donc loolu dara nekk bon en fait les gens parlent les gens parlent mais bon man soo je n'ai jamais parlé ci côté boobu noonu en ce qui concerne sama vie privée côté boobu noonu ma si wax je parle de tout ah man awma sujet bu daw mais si côté boobu noonu comme je dis à chaque fois quand tu as un fils xam nga lu si bëri nga koy bëgg a mais su nekkente ne man kese moom man amul problème quoi y a de souci non fuité gars yi di laaj mooy delluwaat la wax ma ne la en fait je pourrais pas en parler à chaque fois j'évite ce sujet là mais amul benn problème quoi. lan mooy projet lan la ñu a xaar pot ci série yu bees ak say fans yi nga xam ne dañu lay topp lan ngay wàcc d'ici tabaski parce que mën lu ne mën na fee xaj série man na amaat. waaw donc là actuellement soo xoolee bon nous sommes en train de produire euh, Belle Famille en fait. Marodi mi ngi def yeneen série yu ci mel ni ay déchéance xam nga y a également euh, euh, euh, Babel boo xamante ne mi ngi daw actuellement donc franchement am na tamit Med Baye Moussé donc a chaque fois ñi ngi essayer tout le temps di def ay production yoo xam ne dañ koy varier pour que sénégalais yi gis ci seen bopp bu baax a baax a baax donc nañu xaar tout le temps ah, ak ñun de nouvelles production wala tamit anciennes productions yi seen suite. mayu leen dara parce que yéen da ngeen wàññi Babel da ngeen ko wàññi mais Even Pro ñoom dañ leen joxe suukar. waaw mais ça c'est <laughs> c'est bien pour Sénégal en fait le production yu bëri tey jii bon en fait on fait Babel production bi waaw en fait c'est le choix de la prod ñuy def benn division par que sénégalais dañ xaar. En fait, les, gens aiment bien Babel, ils suivent En fait, il y a des millions de vues par épisode. donc tey jii nii suñu leen tegalee benn par semaine day tax sax ñu koy gën a xaar quoi. bete bete dafa commencé suul ba. lool <laughs> loolu yaa ko wax. <laughs> merci beaucoup. merci beaucoup waaye